musuma da dañ ci engagé ci wetu président de la république muy sama xarit président Macky Sall ndax man yàlla dafa dogal lu ma gëm loolu laay wax yàlla dafa dogal sama gëm-gëm ak sama engagement ci président de la république loolu waxtu wu ne dama koy feddile te kenn ku ne umpale wut sama diggante ak moom fii ci réew mi ak bitim réew muy sama wëllëri wu yàgg. lii nag ay élection la woon muy élection yi gox ban tànnee nan tànn doxal lan doxal man jëkk naa jël si parallèle ah dem ak ci biir gox bi laaj baatu askan wi suñ borom dogal na tànn nan ka nga xam ne moom la askan wi wax na moom lan tànn waaye maa ngi delluwaat sama feddali sama engagement ci président Macky Sall loolu it na leer ñëpp beneen bi ci des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 ak lan ko ci xeexee gisuma lenn loo xam ne lu jóge ci benn bokk yaakaar wala benn information buñ am lépp ñu génne ñu kon xamoon na ne mbir mi fii la jëm may wax ne dëkk bii di Touba dafa am ay réalité lu ànd ànd ak président président xam ne ni ñun li ñuy wax lu ñu sincère lan ñu gëm li ñuy wax lan loolu moom kenn du ëmpalitu ko ci ñun lu ñuy wax lu nekk rek lu gëm la tey jii ci tey bu ma engagé toon ànd ak moom it dama koy déclaré fii ñu toog ma wax ma wax ko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 waaye mënoo ko te gis am na loo xam ne ñëpp ngi jàkkaarloo moom ci dëkk bi di ko gis kon foofu damay dem ci bu thème bu mel noonu beneen bi ci la sit may ñëw ci li nga xam ne mooy entourage président lu am importance lay wax président li mu liggéey ci réew mi ci Sénégal mboolem sous-région bi mboolem Sénégal ba président de am ba léegi si kenn mësut a gis li président mak Sall liggéey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 am na ak kuréel yu ma jiite comme ñeneen ñi ñu jiite ay kuréel ministre de l'Intérieur bii di fi nekk un an ngi ne quelque tooguñu maak moom waxuñu lu jëm ci lu mel na mu rejeté ko lan moo tax mu def ko ca ma Madiang Khary Dieng ku ma déggoon Madiang Khary Dieng ma Madiang Khary Dieng ba léegi ci benn ministre de l'Intérieur musu toog un mois ci toogu ma toogu maag si bi ñu waxtaanee réew ma yor ak kuréel muy recevoir yeneen kuréel yi ci des yooyu yan anam moo ko indi nag li ma gëm